لا يتوجه لنحوي مطعب عني مهت مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير